gaan yombal leen police yi yombal leen police yi job bi waaye dox leen ngir yàlla bàyyi leen taxaw bi dox leen ngir yàlla dox leen dox leen salaamaaleykum dox leen dox leen dox leen dox leen salaamaaleykum bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhaatil buruuj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi in alhamdulilah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil mbokk yi ñu del sant yàlla subhanahu wa di ñëw yeggali audio bu nga xam ne moo desoon ci lundi bi eh, kii ñuy wooyee maanaam eh, Abu Diallo ñu koy dàqantale Abu Jandal <coughs> donte maanaam eh, dàqul maanaam tur boobu moom nañu ëpp maanaam ci Alabar ginnaaw ba Lamine Ba Lamine Coulibaly Diallo moom moo ñëw maanaam pour wone Euh, président moo ko ma taxaw la baar ba mu yegsee maanaam président bi comme nu mu ko tàmm defee ak ñi nga xam ne ñoo fi wees lu mu ko njëkk a laaj moom mooy mu moom mooy waxee moom moom mooy kan ak fan fan filiation léegi nag euh, ci noonu ci gàttal ñoom seen bés xam naa incha allah dañ koy tënk noonu rek. Euh, wane na moom daanaka ndaw la ba nga xam ne moo gën a tu nekk xale ci ñi nga xam ne maanaam nañ jàpp ci wàllu terrorisme bi boo xoolee moom mu ngi am li ñu tuddee maanaam vingt-trois ans la am. 23 euh, ans la am élève bu dem def euh, ca ca lycée fee ne ñi tuddee Rosso fa dem jànge euh, classe seconde la nam la la la bàyyee la bàyyee jàng léegi ci wàllu atam daanaka moom moo gën a maanaam nekk xale maintenant nag mu ngi dem saxal ci la kii foofu noonu ci wane ne président mu ko laajte la nga xam ne maanaam moo ko dugal ci mbir bi ñu koy woo ginnaaw loolu tamit mu laajte mu fàttali ko li nga xam ne dañ koy toppee li ñu toppee mooy juróom poñ yi ñuy toppee ay charges yi nga xam ne dañuy toppee ñoom ñëpp rek euh, acte de terrorisme euh, ba mu jeex ba si apologisme de terrorisme bu ko fàttalee lii maanaam laaj ko tax maanaam nangu na ko mu ne moom moom nangul loolu yëpp euh, dàq na loolu yëpp. mais après président bi laaj ko moom ndax tukki woon na si tukki bi mu ne ko waaw mu feddal ne moom tukki woon na foofu ñu tuddee maanaam Nigéria lu ko yóbbee moom tukki foofu nag après laajte kii na ko leeral na ko nee na kii ñuy wooye Aboubacar Gueye euh, moom la xamoon xamante woon te buñ fàtte Aboubacar Gueye euh, nekkoon na foofu ñu tuddee Rosso euh, noonee mu dem fréquenté maanaam daaram Euh, daara bu mu defoon foofu noonu foofu soroo sax noonu la xamante Aboubacar Gueye vacances yi dafa doon ñëw foofu di jàng di jàng Alxuraan léegi nag mu jigi nag mu dem comme bañ minante kooku convaincre ko maanaam euh, pour maanaam mu mun a bàyyi sax dem jàng diineem moo gën si sàkku jàng diineem boobu noonu la ko sax mun na dem fii ba réew bu ñu tuddee maanaam Soudan pour euh, ba demee dana mën a maanaam gën a am maanaam niveau Alxuraan ak maanaam ay mbiru maanaam diineem ngir euh, te bu fa yeg yegsee tamit sax dana mën a amaale foofu liggéey yi nga xam ne maanaam mën na ko liggéey ci wàllu àddunam noonu na nga xam ne da ko convaincre après far fan yooyu noonu euh, day mel ni voyage kii ñu tuddee maanaam Moustapha Faye maanaam fekk presque pare na après ba mu ko kii ba mu dogoo pour dem après ci la boole kii ñu tuddee Moustapha Faye ñoom mu jóge Rosso ñëw ñu daje fii ñu tuddee maanaam garage Pikine mu ne foofu nañu jëlee oto moo Moustapha Faye euh, moo fay Faye euh, ak euh, Lamine Coulibaly boobu jàlloon dem ak ki ñu tuddee maanaam Omar Yafa ak Mouhamed Ndiaye maanaam fa nañ jëlee maanaam oto ngir dem fii ñu tuddee maanaam fuñ ko wax mu ne fuñ fuñ ko wax ñu tuddee Soudan waaye nag après reconnaître moom tamit nangu na ne maanaam ñoom Nigéria nañ mujjoon dem mu ne nag ci euh, yoon boobu noonu dem nañ maanaam ba yegg sax maanaam ba biir Nigéria te daanaka day mel ni yoon bi Lamine Coulibaly bu ànd ak moom kon yoon bu ñu waxoon démb tamit day mel ni même yoon la nee na ñoom ñaar ñoo àndoon ça veut dire que même yoon lañ war a jaar. Mouhamed Ndiaye tamit wane tamit te moom wax na fi ba pare basam jàll na wane na kon yoon yi yoon nañ jàll kon kii bu fàddali feddalee maanaam ànd ak ñooñu rek saaba veut dire que donc même itinéraire nañ jaar ba mbay dugg maanaam Nigéria. moom nëbbu ko te dëggal na ko maanaam ne maanaam demoon nañ foofu ba ba kii ba Nigéria ci abadam foofu. mu ne ba luñ fa nekk noonu nag moom bam fa demee tamit comme euh, nu ko maanaam Lamine Coulibaly waxee euh, coono gu rëy rëy nañ fa am euh, nañ fa dund beneen bi tamit mooy wane na te yéeneem tamit mooy demoon pour jàng diineem pour mun a liggéey waaye nag après président fàttali na ko. Euh, ndax dafa demoon foofu maanaam ngir xeex ngir jàppale bokk jullitam yi nekk foofu mu a déedéet moom loolu tax koon yóbbu foofu ngir maanaam xootel xam-xamam ci diine al su uni quran ak yooyu loolu moo ko taxoon jóge fii dem ba foofu bu beneen tamit mën a jàngale di liggéeyaale euh, moom nee moom lii moo ko yóbboon foofu waaye bu fa demee lu mu fa fekk ak lu mu fa lu mu fa gis maanaam maanaam bokkatoon ak li nga xam ne la dem jot foofu kooku de président lu mu ko fa lii maanaam ndax maanaam jànko daje naa kii ñu tuddee ndax mos na maanaam daje kii ñu tuddee maanaam Aboubacar Sakho moom déedéet moom daf ko jël dàq foofu may mosul daje moom waaye nag mu ne moom dana nangu ne nekkoon na ñu tuddee maanaam àll bi ñu tuddee Sambisa mos na fa nekk te déggoon nañu ne ko foofu la nekk waaye nag kanta mos a gisee moom daje moom loolu moom mosul am lu tax mu demoon foofu ndaxte Aboubacar Gueye boobu noonu moom mu ngi woon foofu ak Aboubacar Gueye mais tey Aboubacar Gueye mu ne ca bërëb boobu la nekkoon euh, foofu ñu tuddee maanaam àll sambi sabi comme moom moo ko fa yóbboon bañ yegg see tam foofu nañ mën a nekk ak ak ñoom euh, léegi nag euh, ba ñu kiiyee nu mu tëddati sax ba mu ba mu ba ñu kii maanaam bokkoon si nga xam ne ñu ko joxoon paas ñooñu ñoo ko ñoo ko jàppaloon paas ba muy ñibbi ba muy dem voyage bi kon ñoo ñëpp ñoo leen jox paas cent cinquante mille cent cinquante mille maanaam pour ñu mën dem euh, foofu ñuy tuddee maanaam euh, Nigéria donte ba ñuy dem ñoom wax nañ ne maanaam waxuñu woon leen fu ñuy dem ak yéene bi tam bokkutoon ak bañ demee dem luñ fa fekk maanaam ak luñ fa liñ fa gis maanaam bokkul ak li nga xam ne loolu na moo leen yéene boobu moo leen fa yóbbu woon Eh, mu laaj na ko tamit ne ko waa yow ndax mosoo teewee ay réunion Fuuta Rooso wala Richard Toll réunion bu nga xam ne eh, am na réunion bu nga xam ne kii ñu ooy maanaam Moustapha Diop eh, xalaatam rotoon na fa ci wane ne maanaam moom mu ngi war ngeen voyager dem tukki Libi fekk si ko ngir sukka ni ñi ñu tuddee maanaam Daesh foofu ca Libi te ci réunion bu nga xam ne maanaam nee nañ fa Matar Johana ba sax mu ngi dem waaraate eh, di xërtal nit ñi kir ñuy tukki dem Nigéria pour maanaam dooleel ñi ñuy tuddee waa Boko Haram si seen xeex bu ñuy xeex maanaam ak armée nigériane. Eh, après ci wax yooyu nag procureur moomu moom fàttali na ne maanaam ne abu abu jàllo bi. moom nangu woon na wax yii mel yi ni mel ginnaaw ba nga nangu woon na wax yi mel ba teg si ne sax maanaam nangu woon ne sax moom defoon na formation militaire ca bërëb yooyu Boko Haram nekk def na fa maanaam formation militaire procureur moom yii la wax te mu ne na de euh, ci déclaration bu ñu defoon ca police bañ ko jàppee tamit moom leeraloon na loolu après nag ma Abu Jàlla moom dàq ko dàq lépp nee na moom loolu moom buñ ko bindee moom mosu ko mosu ko wax waaw muñ ko bindee moom mosu ko wax te nee na sax moom kooku rëccal na ba joxe xibaar procureur mooy wax ne xibaar bi wane ne maanaam Matar Joxaane yéene gu rëy la amoon ngir samp fii ñu tuddee senegal euh, fu mu si Sénégal ay maanaam euh, ay euh, ay ay cellule jihadiste ay kuréel yu ndaw yi nga xam ne def ñaawte si askan bi moo leen tax a jóg lu mel ni maanaam def jëfum terrorisme fii si Sénégal mu ne yéen a gi la amoon pour def moom nee na kii procureur nee na kii rotal na maanaam xibaar yooyu foofu noonu ci enquêteurs yi. te nee na nag loolu pour mu amal ko Matar Joxaane mu ngi ne wax ne mu ne si bi procureur lu mu wax kooku loolu la wax ca police nee na Matar Joxaane sax mu a lii pour mu amal ko mu ngi maanaam yaakaar ci euh, mbokk jullitam yi euh, nuñ koy mën nuñ koy sukkandike pour mu mën a bëgg amal lu mu bëgg amal nii. Euh, procureur mu kon ne mu ne ba léegi tamit Abu Diallo wax na ci enquête bi ne. Euh, ne moom abu euh, Aboubakar Sakho moom mosul am euh, mosul am ay ay yéene fii ci waa Sénégal ngir def fi ay jéeya xamal na ne lool ci enquête bi wane na nag waaye dingal na lii ñuy tuddee maanaam islam maanaam Sénégal waa Sénégal na ñuy dundee seen diine l'islam dingal na ko ndaxte diine façon bu ñu koy dundee nii teguwul fukk fukk si lu ay ay ndeeslaay nga xam ne loolu l'islam nangu. après lii ba mu ko waxee procureur euh, laaj ko ñu ne ko yii ndax yaa ko nangu woon foofu noonu ca maanaam ca enquête ba ak ca euh, juge euh, maanaam Abu Jàll lu mu def moom mooy dàq lépp lii nga xam ne wax na ko nee na moom mosul wax lii maanaam yi nga ko bindel fii yëpp ay Aboubacar Sakho ak yéenam ca Sénégal mosul amak ak waaye di nga na mën a diine Sénégal nuñ koy dundeek Matar Joxana yéen yu mu fi am pour samp fi mu ne man yii yëpp man mosuma ko tudd foofu noonu waaw mosuma ko tudd foofu ndaxte bañ ma jàppee sax mañ ma jàppee man ci feebar laa nekkoon dama hospitalisé hospitalisé ku feebar ta kay kay xelam mun na dem est-ce que mun na mën a wax luy wax yi yi di mel Euh, après nag moom mosul nangu lool waaye daal mu ne moom lu mu nangu moom wax na ne moom demoon na dese déjà nekkoon na ca bërëb yooyu nu nga xam ne waa Boko Haram ñu ñu ngi fa dem ñu ngi dem xeex foofu waaw moom daal nekkoon na si bërëb yooyu waaye euh, waaye nag wax ji li mel ne maanaam wax ne Matar Joxaane maanaam. Euh, amoon na yéene mu xam fa ay kuréel yi def ñaaw tey si biir askan bi mu ne moom musul wax loolu après mu ñëw ñu ne ko yow Euh, juge bi laaj ko maanaam pour mu leeral façon bu nga xam ne maanaam nañ koy maanaam jàppee mu ne moom ci euh, nettaleem ci anam bu dënku euh, dafa ne moom daanaka ba ñu jógee foofu noonu Matar Joxaane maanaam ñoom dañoo amoon yéene pour ñoom ndaxte jafe-jafe ñu dem dund foofu la dafa jafe yu ñu dem dund foofu amoon na yéene maanaam pour dellu dellu si Sénégal parce que sénégalais yu bëri Matar Joxaane moom mooy négocier maanaam seen ñëw Euh, boo xoolee ñuy wax li day mel ni de répétition quoi mais wax ne moom ak Lamine Coulibaly ñoo ànd xam nga démb kii la wax kii kii ñoom ñoo ànd moo tax su ñu defaat audio bi day mel ni répétition mais fekk du xam ne maanaam moom la waxaat kee tam mu ñëwaatee tam bañ ko laajtee loolu la waxaat kon day mel ni nag euh, baamtuwaat la ci maanaam euh, si si juge bi mais dañuy popp procès bi ko nekk lu mu wax ñu wax loolu su ko defee ñu xam ne yow miy déglu da nga xam ne yow lii kii baamtuwaat na kee lu mu waxoon ci dëggalaat na kële lu mu waxoon ni par comme ñoom ñaar ñoo àndoon benn tukki benn oto ñu ñibbisee tam ñoo ñu ànd moom na si gàttal nee na nag ba ñuy ñibbisi foofee ne maanaam ca Nigéria bañ fa nekkee ba tartar bi maanaam euh, saxe seen seen kaw euh, jafe-jafe yi ci lañ maanaam ñenn Sénégal yi sax ko maanaam pour dellu si waat ba ñu amee autorisation bi si ci ci ndimbalu maanaam euh, Matar Joxaane après ci lañ am yéene pour dellu si bañ si dellu si nag ci yoon bi maanaam ba ñuy génn génnee si àll bi yëpp di dox ci lañ dajeeg maanaam benn mbooloo euh, bu nga xam ne si waa Nigéria euh, armée Nigéria lañ bokk si lañ leen jàppee ba leen jàppee ñu tëj leen fi ñu tuddee Gaydam si région bu ñu tuddee région Yobe Euh, boobe lu leen taxoon njëkk mooy mooy fexe nu ñuy génnee pour ñibbi fii Sénégal ci yoon bi ci la leen jàppee bañ leen jàppee moom mu ngi àndoo ki ñu tuddee Moustapha Faye ak ki ñu tuddee Lamine Coulibaly taxawoon ak maanaam Mohamed Lamine Diallo maanaam ñi ñoom ñoo àndoon bañ leen di jàpp bañ leen jàppee nag euh, tëj nañ leen foofu noonu euh, méttital la leen xeetu méttital gu jéggi dayoo ci maanaam foofee ñu leen tëjoon maanaam ca maanaam ca Nigéria bañ leen sonalee foofu nag sonal dëgg-dëgg sonal maanaam euh, ci coono yi métti yooyu ci la kii génne àdduna Moustapha maanaam euh, Faye euh, day mel ni Lamine Coulibaly seede woon na yi ni mel démb mu ne nag ci la génnee maanaam ci la génnee àdduna ba foofu tamit ci la kii ñibbisee ñëw maanaam jàppe si leen maanaam ñu transféré leen beneen prison maanaam mujj gi ambassade bi mu ambassadeur bu Sénégal bu nekk ca bërëb ya foofu moo mujj maanaam intervenir ngir ñu mën leen maanaam jël ci lañ leen delloo si fi Sénégal moom daanaka lii la tënk ci maanaam yooyu. Eh, li nga xam ne procureur wax na ko wax na ko ci maanaam projet yi nga xam ne maanaam Matar Diohane am na ko te beneen bi sax mu wane na moom eh, eh, wane na ne moom yéeneem dem ca Nigeria nekkutoon du ngir sàkki maanaam liggéey ak gën a xóotal xam ci wàllu Qur'an. dem na ba procureur na waa yow li li ñu wax ci yëpp yaa ko ci enquête bi xanaa yow da nga da ko daaxee ne kon da nga bëgg a wax ne ñi dañ ko dañ ko xalaat nii rek enquêteurs yi bindal la ko nii mais loolu est-ce que mën nga nekk. loolu foo mun a nekk lu tax nga ne lii yëpp yow waxoo ko te xanaa ñoom dañ ko dañ koy xalaat nii bindal la ko nii rek mu ne daal moom daal bañ koy jàpp moom dafa nekkoon mu feebar wa dëgg la dañ ko jàpp da ko fekkoon mu feebar bu dee nañ ko wax loolu moom si feebal kay moom mun wax ndax lii moo ko wax wala déet parce que moom euh, bañ koy arrêté fekkoon na maanaam am mu am feebar feebar gu métti euh, après ci noonu bon bu xoolee kii yam presque guddul après noonu mu ba tax amul presque lu spécial après noonu nañ ko waxee pour mu delluwaat ci kii bi nu mu tëdd sax fu mu toogoon euh, laajte yi mel nii ak yu gàtte yi nii nañ tënkee maanaam mbiru Abu Diallo alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah mbokk yi ñu ñëw ci journée mardi bi maanaam ci bésu mardi bi euh, kii ñu tuddee maanaam Ibrahima Ndiaye moom moo jàll ak euh, euh, Pape Kibili Koulibaly maanaam ñoo ñoom ñoo jot a jàll Mouhamed Niang nag bésam nag nekk na li nga xam ne lu gudd daanaka maanaam jël na maanaam subateel bi yëpp 9h40 boo xoolee ci la audience bi tàmbale ci mardi maanaam 24 avril la 2018 euh, mardi 24 avril 2018 mu tombeeg démb euh, ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala kii lañ njëkk a maanaam o oh, kuñ tuddee Ibrahima Ndiaye euh, ba ko mu ñëwee maanaam président bi ba mu ko laajte pour mu ràññeeku joxe na filiation lu mu ci wax moom mooy moom mu ngi judd maanaam le 8 janvier 1977 ci Pikine jabar yu bëri la am am na jabar yu bëri ak juróom benni maanaam doom ak juróom euh, safoor la ak euh, juróom-ñetti doom la yor maanaam métier lu muy liggéey mooy maçon la euh, fii ci Sénégal mu ngi dëkk fii Pikine la juddoo waaye fu muy dëng am kër fay ñu tuddee maanaam Lac Rose fa dëkk maanaam jàng na li ñuy tuddee maanaam Quran alquran jàng na ko maanaam juge bi ne ko yow xam nga yow li ñu toppee. di maanaam moom euh, mu ne ko ba mu koy xamul lay toppee euh, juge bi tam bàyyi ko mu wax mu ne ko ñu ngi lay toppee ñuy tuddee acte de terrorisme pour association de malfaiteurs jëfum euh, ñaawteef si askan gi lëkkale ko ñi nga xam ne dañuy def ñaawteef entreprise de terrorisme mooy mbooloo bi nga xam ne dañu bugg a def maanaam terrorisme acte de terrorisme permanence de trouble à l'ordre public jëf xeetu maanaam ñaawte ci askan bi ngir xoqatal euh, ngir yëngal li ñu tudde dalgu askan gi am beneen bi moom mooy dundal maanaam euh, terrorisme dundal ñaaw jël sa alal dugal ci juróomeel bi moom mooy xërtal ñi ñi ngi ñuy def maanaam ñaawte ci askan muy apologie du terrorisme laaj na ko ndax yii ma lim nii yow yëpp nangu ne yaa ko def mu ne déedéet moom nanguwul ne moom moo ko moom moo ko def juge bi ne ko yow euh, dañu bëgg nga wax ne circonstance bi nga xam ne nañ la jàppee Euh, ana anam bi nga xam ne nañ la jàppee laa bugg a xam nga fàttali ko man ak mbooloo ji fi teew muy nettali mu ne euh, ci euh, benn jour benn benn am na ku nga xam ne moo ko musa ci bërëb bu muy liggéeyee kenn kuy wuyoo aram jigéen la woon am na koy wooye maanaam Adam jigéen la woon ba nga xam ne moo ko musoon maanaam uh, woo moom moo ko musoon woo di ko maanaam am na maanaam uh, lu mu ko war a jox comme ni mel ni xadis mais nag uh, daka am na comme yóbbante ba nga xam ne moom am na yóbbantem ba nga xam ne moom la war a jox maanaam kii nu mu tëdd sax moom la ko war a jox dafa am yóbbantem aram lay wuyoo da ko woo téléphone ne ko maanaam da ko war a jox benn yóbbanteem euh, ci noonu nañ waxee maanaam euh, ci téléphone nañ wax après mu leeral euh, kooku moom mooy kan alhamdulilah moom bañ ko jàppee moom ñu ngi ko jàppee maanaam Mauritanie kooku muy tuddee maanaam ki ñu wuyoo maanaam aram ca Mauritanie la moom bañ koy jàpp maanaam kooku moo ko woo ko ne ko dafa am benn yóbbanteem ci euh, maanaam wax ji tamit jotul yegg maanaam jotuñ yegg ñu bañ a ñu ñu bañ a déggante wuñu bu baax maanaam ci suba si nag la ko kooku waat euh, la ko kooku waat euh, ne ko moom boobu mu ngi xëy sax moom mu ngi dem xëy di dem dem liggéey après kooku ci la ko boobu mu ngi si yoon bi nekk moom mu ngi nekk maanaam fi ñu tooyee maanaam Medina na ñëw foofu noonu foofu sama Mauritanie la quoi mu ne na ñëw foofu dafa am yóbbanteem te daf ko war a jox. waaw mu ne nag ba mu demee ba yegg si foofu bërëb boobu noonu mu ne ci la ay nit ñi ñëw maanaam wër ko ba ñu ko waree jàpp ko ñu ne ko ñun ñu ne ko c'est la police police la waaw ah, brigade bu police bu Mauritanie. léegi nag noonu mu ne noonu nañ ko jàppee bañ ko jàppee ñu yóbbu ko maanaam brigade nangu téléphone bu mu yoroon euh, maanaam chaîne euh, kii ko mënate ko euh, takk ay loxoom yëpp. Euh, tamit euh, yóbbu ko foofu noonu cellule bi maanaam euh, ci lañ ko tëj mu toog foofu nag ay fan tuuti ay tuuti même jour bi ci lañ dem këram maanaam jaxas-jaxas bagage am yi foofu fuyete fa demande laaj nañ ko maanaam yow fan la say kii maanaam bagage nekk ak yëpp mu wan leen fi fu mu nekk après ñu ne ko yow bañ ko téye foofu nag waxuñ ko luñ ko jàppee mu nekk fa ay fan sonn sonn sonn moom après foo mun a nekk na fa lu lu toll di maanaam euh, weer si maanaam ci police maanaam anti terrorisme après ci leen ko ne ñu ne yow ñun dañ la dañ la gis euh, ak Mohamed Ndiaye mu yor tamit Mohamed Ndiaye mu yor maanaam quatre cent mille francs nee na cent mille yi yow maanaam yow yaa ko moom te sa paas la woon pour nga dem maanaam Nigéria te mu ne ba mu ñëwee foofu maanaam gis na fekk na Mohamed Ndiaye maanaam ñu jàpp ko après juge bi presque wax na ko yow. Euh, ñaata yoon nga dajeeg Mouhamed Ndiaye ñaata yoon nga dajeeg Mouhamed Ndiaye en 2016 ñaata yoon moom nee na maam ñetti yoon laa dajeeg Mouhamed Ndiaye en 2016 benn jour rek la ma woo euh, la dem maanaam fu ñu tuddee maanaam Nouakchott euh, ci la benn yoon ci foofu téléphone ci la ma laaj ma nga nekk nii man ma ne ko maa ngi tudd maa ngi nekk fu ñu tuddee. mu ne ci la ci la ba mu ko woowee téléphone ci la laaj Mouhamed kii euh, Mouhamed Ndiaye yow fa nga nekk ci la ko mu ngi ne mu ngi nekk Medinatul Wara foofu ci maanaam euh, ca Nouakchott euh, après ci la ko wax ne sax moom moom kon moom mu ngi ñibbi mu ngi dellu këram après ci la ko Mouhamed yëgal ne sax donc moom sax dafa tàkk foofu maanaam jigéen maanaam Mauritanienne Euh, après juge bi presque sàkkoon na ci moom euh, yan euh, pour mu détailler ko maanaam mu leeralal ko waxtaan googu nga xam ne amal na ko ak maanaam Mouhamed Ndiaye moom ba léegi leeral ko nag leeralal. alhamdulilah maanaam ci daje bi nga xam ne la waxoon maanaam Mouhamed Ndiaye. pour mu leeral ne maanaam seen waxtaan bu nga xam ne amoon nañ ko moom mu leeral mooy Mouhamed moom Ibrahima Ndiaye mu ne Mouhamed Ndiaye moom mu ngi ko xam euh, en 2014 la xamante maanaam Mouhamed Ndiaye euh, te mu ne tamit tukki bu nga xam ne maanaam Mouhamed Ndiaye tukki na ko moom maanaam yëgu ko woon euh, xaritam la benn xaritam moom moo ko maanaam xibaare ne kooku dafa tukki woon te mu ne même wax yégal na ko ci tukki boobu noonu xaritam boobu ne ko dégg na sax Muhammad dafa nekkoon ci bërëb Nigéria fay ñuy tuddee maanaam Boko Haram ba ma déggee noonu nag loolu nag maanaam yéem na ma ci lool lool xibaar googu nga xam ne dama rotal sama nopp euh, ba tax maanaam may dem wuti ngir xool fan laa ko mën a euh, mu ne nag pour mu am xel bu dal nag moo taxoon maanaam boobu ma déggee na ñibbisi na ma euh, jàpp ak moom rendez-vous moom Muhammad ba ñu gisee euh, lu ma ko njëkk lu ma ko laaj mooy ne dama mën a ma xibaare ndax dëgg la wala déet ni moom tukki woon na génn fii ñuy tuddee Mauritanie mu ne waa dëgg la loolu moom dëgg la moom génnoon na te demoon na bërëb bi ñuy tuddee maanaam Nigéria euh, mu ne ko waa parce que man dama dégg ay euh, ay ay xibaar yi nga xam ne wóoruma Euh, ni yow da nga génnoon maanaam te nekkoon sax ci bërëb yi tuddee bërëb bokk boro xaram ci boko xaram fu ñu nekk mu ne déedéet man kay dem dëkku woon naa ba yegg si Nigéria mais lu ma fa yóbbu moom mooy dem xóotal sama njàngun diine mais pas dem si waa bokk xaram fu ñu nekk. mu ne beneen fois ñoo xam ne beneen yoon bu nga xam ne ñoom dajawaat nañ bay waxtaan mooy bés bu nga xam ne la dem ngénte moom doomam moom Ibrahima Ndiaye moo dem ngénte doomam si ngénte boobu la maanaam la Mouhamed Ndiaye mi ñëwoon. ci ngénte boobu nag toogoon nañ nag maanaam di seetaan ay vidéo ay vidéo yi wane maanaam ay ay ay xeexkat yu nekk maanaam fële ci libi di ay sénégalais feeñoon nañ ci maanaam ci vidéo yooyu ñu seen seetaan mais nag mënuñoo leen ràññee parce que dañoo maanaam muuroon seen kanam dañoo muuroon seen kanam gisoon nañ sax ñenn ñi si yor maanaam ay arm Euh, mu ne daal ñum ci xàmmee daal kii ñuy tuddee maanaam Moustapha Diop gis na ko fa euh, ak kuñ ñu tuddee maanaam Aboubacar maanaam Guèye ba nga xam ne maanaam ñii ne ñu faatal na ñii ne xamuñ fu mu nekk euh, mu ne tamit beneen daje bi nga xam ne dajewaat na ko ak Mohamed mu ak Mohamed Ndiaye mu ngi amee ci maanaam këru ñaareelam bi moom waxoon na ñaare jabar la am ak ak juróom-ñetti doom Euh, mu ne nag foofu nañ daje euh, daje woon mu ne su fàttaliku bu baax ci 2016 la mu ne si man sax si boppam maak ko xibaare ci téléphone euh, man maa ko xibaare si téléphone ngir maanaam mu mu ñëw ñu ñu gisee ba ñu si gisee googu nag maanaam tamit. profité naa pour laaj ko ay question ay ay laajte yi nga xam ne maanaam yu ma yitteloon ci moom euh, laajte itam yi nga xam ne ay koju diine la maanaam lu jëm ci wàllu diine mu ne nag waaye euh, ci maanaam mbiru Boko Haram ba ma ko laajte moom daf ma maanaam wax ne moom euh, mu suul maanaam nekk ci bërëb yi nga xam ne day sukkandi maanaam Boko Haram demoon na fa dëgg daal waaye daal ci paas bi sax lu ko yóbbu woon deux cent mille la waaye daal dekk woon ci bërëb fu nga xam ne nañ dem xeexe waa boo ko waa boo ko xanaa fu ñu dem xeexee moom daal daanaka lii la leeral juge bi ci li nga xam ne maanaam waxtaan bu nga xam ne amaloon ko ak kii ñuy tuddee ak kii ñuy tuddee maanaam euh, Mouhamed euh, Ndiaye léegi nag euh, juge bi laajte ko ne ko moom détails yi la joxe quoi pour li nga xam ne waxtaan yi nga xam ne amal na ko Mouhamed Ndiaye maanaam. Firim Fàcce la si def pour maanaam wane ne lii nañ fa waxtaanoon euh, ci euh, dàq ba nga xam ne Mouhamed Ndiaye dàq na euh, bu baax ci seen wax ni wane ne maanaam mosul dem ci jihaad si maanaam bokk xanaa mi ngi sukkandi leen maanaam seen seen xeex moom da ko yóbbu woon mooy xeex yi dem dem sàkku ji xam-xam xóotal xam-xam diineem maanaam tamit Euh, saxaloon na ko ne tamit ci bërëb yooyu mu demoon <coughs> fekkoon na fa kii ñuy tuddee maanaam Moussa Mbaye te moom xamante ne moom Moussa Mbaye te mu ngi dund fekkoon na ko foofu noonu ak kii ñuy tuddee assan Diène man waaye moom ba mu jógee Assane Diène dégg na man dafa dafa dee fee ci Libi comme moom demutoon Libi mais di am na xibaar ne assan Diène dafa dee si Libi après président ne ko yow euh, président ne ko yow. kan moo la xibaare xibaar yooyu yëpp xibaar yi xam nga ko xibaare euh, mu ne ko man Mouhamed Mballo euh, gisoon Mouhamed Mballo laa gisoon moom muy wane maanaam euh, image yooyu yoon ci te mu ne moom mu ngi ko jukkee ci internet yi nga xam ne day ne Assane Diène moom dafa dafa dafa dafa dafa mujj de ca bërëb xale yooyu noonu ànd ak kii ñu tuddee maanaam Abdoulaye Dièye ak Zaid Ba nga xam ne firnde la ci maanaam ci foto euh, yooyu ñu wane ne ñoom maanaam euh, dañoo dee ci toolu xare ya waaye nag Mouhamed Ndiaye moom dëggalul ko woon ne ñi ñoom deewoon nañ fa lu mu ko wax ne mooy gisoon na fa Moussa Mbaye ak wane ne maanaam kee ñu tuddee Assane Dieng ndax ñu na waaye nag lu mel ni maanaam Abdoulaye Diaye ak Zaid Ba maanaam Mouhamed Ndiaye dafa weddi woon ne ñooñu maanaam euh, photo yooyu du dëgg maanaam ay montage dong lañ ko def. après euh, juge bi ne ko yow kan mooy Moussa Mbaye Moussa Mbaye kan mooy kan mu ne Moussa Mbaye sëriñu daara la buy jàngale euh, amoon daara fee ca Lagos maanaam sëriñu daara la buy jàngale alquran mu ne ko waaw lu tax Moussa Mbaye mu jógee fee ñu tuddee Lagos te day mel ni moom euh, amoon na fa ay problème ak say ay ay xaritam foofu noonu ca Lagos ginnaaw ba maanaam xew-xew yi amoon ci jàkk maanaam kii ñuy tuddee Abdou Karim Ndour xew-xew yooyu noonu ginnaaw ba mu amee tey mel ni amoon na ak wuute bu bëgg ak ci mbokk yi nga xam ne ñoo nekkoon rek loos lu koy jëkkati foofu ba mu ba mu jóge fa. après maanaam euh, Ibrahima ne ko c'est que moom dafa defoon benn euh, yëgle ba nga xam ne euh, ay si ay wax la ko def lu ñuy woowee audio si tubaab. ne wane na moom dafa amoon ay euh, wuuteeg ak mbokk yam xaritam yi nekk ci Lagrose ndaxte wu leen wutale mooy façon bu nga xam ne nañuy jàppee charia duñ ko war a dundee waaw moom si boppam moom nee na Moussa Mbaye man lu ma gëm te lu ma gëm di ko dëggal mooy amoon nañ maana wuute ak ñi samay mbokk yi parce que moom dafa demoon ba taral maanaam Euh, événement yi nga xew-xew yi nga xam ne ñoo amoon fee si Jurbel daf ko taral taral bu jéggi dayoo ko taral tag taral bu jéggi dayoo min ash-shaytaani r-rajiim bismillaahi r-rahmaani r-rahiim was-samaa'i dhaati l-buruuj wal-yawmi l-maw'uud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV wéy leen di abonne ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi